Soxna Mbàkke bi barakallahu mu nekk ay ndogu yi nga xam ne da koy def sak at ah, tey nag fii ci géejawaay wax dëgg yàlla yéen a ko gisantoo mu nekk mbir mu am solo ñun ñëpp teg suñu bët ah, léegi nag ñu ñëw nag ci phase bu mujj bi jàkkaarloog sëriñ bi fas yéene ko jox kàddu yi incha allahu rabbi mu baaxe taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy Dakar 24 seen émission bi nga xamante ne mooy ñu ànd gunge leen ci koor gi xanaa ñu jox sëriñ bi kàddu gi rek incha allahu rabbi mu yeggee yi nga xamante ne mooy ay cant ak ngërëm ak i baax baax yi nga xam ne ñun taalibe war nañ ko jariñoo bu ko defee bisimilah sëñ bi ñu ngi lay bisimilah. bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin bi ihsan ila yawmi din biyee ñu ngi lay ziar bu baax di la nuyu di nuyu mbokki taalibe yépp di nuyu it waa Dakar 24 di leen wax ne seen taxawaay ci biis bi nga xam ne moom lañ doon amal fii ci géejawaay Daaru Salaam rond-point marché jeudi taxawaay bi am na solo lool tey rafet na macha allah ànd ngeen ak mbokki taalibe yi gunge leen ba lépp loo xam ne ak fépp foo xam ne bëggoon nañ fa àgg sama boroom dogal na ne àgg nañ fa ci jàmm lépp it ànd ngeen ko mu rafet macha allah kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax mu mel ne bis bi nag moom li taxoon ñu di ko def rek mooy xam ne sukkandiku sunuy wax ak sunuy jëf ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ne maanaam luqmatun waxidatun fi batnil jaaya mu ne xayrun min binaayi alfi masajid yonent bi dafa waxoon ne benn tibu ñam nga jël ko jox ko jullit bu xiif moo gën tabax junniy juma wala junniy jàkk mu mel ne nag kon boo wooree ba ngoon jot moom ku ne xam na ne kon xiif nga euh, ci loolu it ci lañ sukkandiku ba daanaka waajaloon lu tollook junniy doomu aadama yoo xam ne dañ leen a waajaloon ay ndogu ngir jox leen ko mbokki taalibe it mel ne plan bi ñu tegoon mooy dañ ne woon rond point marché nañ fa joxe waaye it bitigu xalifa ñu joxe fa bu ko defee ba centre sauvegarde ba rond point Canada ba croisement Sam ak fépp moo mel ne daal waaye daanaka fu ci bari ñoom topp nañ tali bi di dab oto yi dugg ci biir biis yi fu nañu dugg fa joxe loolu it nag ñi ngi koy sant yàlla bu baax waaye it nag di ko sant Serigne Touba mi nga xam ne moom it jàngal nañu li ñuy tuddee xitma ma mu mel ne nag jullit bi moom mënta def daanaka lu ëpp solo loolu gannaaw ba mu matalee juróomi ponk yi nga xam ne moom la yàlla fonde diine lislaam jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gannaaw ba nga xamee ne amul benn buur bu dul yàlla sedd na it Muhammad ndaw la loo xam ne yàlla ko yónni nga taxawal julli ngay woor weeru koor ngay natt asaka soo amee kàttanug poos ak kàttanug yaram it nga dem aji màkk mu mel ne ginnaaw loolu it sëriñ bi dañoo indilaat lu ñuy tuddee xitma ma mooy nga fexe ba la la yàlla santut nga di ca def lu baax foo toll te yaakaar naa li la yàlla santut dara jiituwu ci nga fexe ba jullit ñi nga xam ne dañoo xiif wala ñi nga xam ne dañoo tollu diggante nga di leen dimbale ci sa kémtu lay kàttan mu mel ne it loolu ci lañ nekkoon mu mel nekkoon bis bi dañ ko daan def waxtu wu nekk at mu nekk samedi bu njëkk ci weeru koor gi lañ ko daan def ren nag mu mel ne ñaareelu samdi bi lañ ko mujjee def ndax comme ni ma ko waxee woon mbokki taalibe bi dama leen waxoon ni ren nañ ko woyafal waaye it mujj na woyafal googu it mujj na ëpp ñu doole lool mu mel ne lañ bëggoon a woyafal sax moo far gën a diis lañ daan diisal te jàpp ne loolu la ñuy diisal mu mel ne kon loolu jëfi yàlla la rek jëfi yàlla nag moom du dellu ginnaaw waaye kanam rek lay jëm yàlla na muy lu baax mu mel kon nag wax dëgg yàlla kàddu yi moom mën na bañ a gudd waaye daal itte ji mooy fexe ba dajale jullit ñi jox leen ay ndogu jox leen ñu lekk jox leen ñu naan waaye it soññaat leen tegaat leen ci aw yoon waaye it sawarloo leen tamit ci jëf lu baax wan leen it ne leen weeru koor moom weeru yërmande la waaye weeru njëkkante tamit ci def lu baax la bu ko defee loolu yi daal ci lañ nekkoon mu mel ni géejawaay gépp nag ak kilifa yépp ak ndaw ñépp daayira yeeg mbokki taalibe yeeg homme politique yeeg presse beeg ñépp wax dëgg yàlla ku ci ne maanaam ñëw nga feeñal ci sa yéene am nga ci tamit taxawaay bu ma sëkk mu mel ne it li li coono nag am na ci bu baax a baax lii ñuy def sax mënuñu ko waaye it nag euh, comme da ngeen a àndoon ak ñun liggéey bi ba liggéey bi toll fii mu toll ba lépp mat daanaka ngir it ñu jàppale leen ngeen tëj liggéey bi loolu it du lu mën a ñàkk moo taxit wax dëgg yàlla ñu ne nañ tënk rek tënk gi nag moom du dara lu dul sant ñëpp sant mbokki taalibe yépp nag rawatina mbokki taalibe yi sant na ñëpp waaye nag mbokki taalibe yi dañ leen di beral ak cant rawatina it diggante daaru salaam gi ak saam bu ñu limee nag dañuy juum waaye it nag mel na ne mbooleem jëf joo xam ne daan nañ ko jëf ñoom taalibe yi de ren dañ ko yokk waaye wàññiwuñ ko mu mel ne sax am na ñeneen ñu leen fekk ca jëf jooja ndax damay wax ne toujours li tumuranke mooy li nga xam ne yow dong yaa ci wéet yaakaar na liggéeyal sëriñ bi moom ci jaami yàlla yi soo ko wootee doo ci weet di nga gis ñoo xam ne sax mën naa am sax ñu fekk si la ci ren ren nga leen ci njëkk a gis waaye ñoom dañ woon siiwee xabaar ba agsi ci ñoom wala image bi agsi ci ñoom bañ man cee am taxawaay waaye loolu it ren dal nañu fii ci Darou Salaam mu mel ne saam lañ ko daan defee waaye indi guñ ko indi fii biitu ko xalifa fekk mbokki taalibe yi wàllisi nañ ci tey jàppee nañ ci noo xam ne sax man naa am maanaam kawe na suñ njort ci jëf ak ci taxawaay waaw kon nag ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax kon daal bàyyiwuñu kenn ci géejawaay gépp nag rawatina Darou Salaam ak Sam Notaire rawatina euh, commune bu Sam Notaire bii ñu nekk sant nañ ñëpp. gërëm ñëpp gërëm waajur yu góor yi gërëm waajur yu jigéen ñi gërëm mag ñi gërëm ndaw ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh